tere bi gardien gardien ak Monaco xaman ba xam nga léegi Yeah. Gracias. Abdoulaye Gawe kon bu nee nee match baa ñu ñëwaat match ba démarré deux heures rek kon waa la confiance deux waa président un man kay waa saa ko bëgg ñu ba président kon match bi rek mu laataange waaw léegi xam ne final bi ñu nga waaj a baax daanaka seen bële waa marché mbay bu gën a seen bagaas waa lii sax naa ko attaque ñu ñaata yëpp la ñoom tamit bu ñu jar kon premier match bi lépp jeex waa sax bëri na fan la parce que ay ci côté défense bi loolu laa woon jéemal loolu laa woon jàpp bi jox ah, na ko ah jox dëgg dañu wax sax ba dina yàggal ne saa yi bëgguñu dara lu dul fàtte ñu jeex dañuy bëgg duura dañu koy wax ñu defal ko wala génn waa taa boobu génn nañ ko waa presse ba génn nañ ko asaaf wala mu tànn monsieur Diop ah góor naa ko jox ko ko jàpp ne ko numéro 10